acte deux bi. acte deux bi mooy réalisation. waaw man man dama mos a déploré ni ni Bara daan na mën na ma daan ci ay kii mais jusqu'à présent loolu mënu ko am ah, parce que mënu ko ko daan malgré que boo boole ci ay palmarès la ne ah dañ naan Gris Bordeaux Bara daan na ma en tant que conscient profond de Gris Bordeaux dama mos a déploré yàlla nag may ñu ne ñu war a bëriwaat def laa bëri. dama mos a wax ni mbënd boo koy daal da nga koy bëgg daal wala nga leen ko dox bëgg suuf donc loolu la ñuy jàpp bëgg daal kon ko nekk suñu père indiwaat na daay yàgg ko laaj sama supporter yi ku ma tudd noonu mais waxtaan na war a toll yàlla indi na lool kon loolu ñu sant yàlla bu baax pare nag pour waat pare pour woon Dakar pour woon fukk ak ñaar ci Dakar ak le fii le nouveau fusion entre Fass et Dakar xam nga ku xam ku xam fekk xam nañu c'est l'expert comptable de la lutte donc day tey avantage la tey ñu am un grand combat comme combat bi si ñaan yàlla rek yàlla na si yàlla na jàpp gaston lépp loo xam bëgg na ko ci yàlla ko yàlla dafa ci barka ko di nuyu suma ménager di nuyu presse bi yëpp ak ah. abbas euh, di nuyu nag suma président équipe am ah. parce que tey umpuluma ak moom euh, ci événement bi tey xaar-xaatu jullit tey bu leen fàttali si le tailleur le grand tailleur te ma li ko xam nga tey gis xam tailleur bi période bi dafay nekk ko période bu crucial pour moom ñàkk am jot wala xat-xatu embouteillage moo tax teewul fii mais bu ko ñu toog teew fii honoré bis bi parce que nit la boo xam ne m'a toujours étonné ci période bu compliqué réew ak Gaston parce que li ma doon wax ak moo ko wax man li ma am rek mooy ñëw toog woo ma jëm laa nuyu ma xaar mettre euh, d'accord naa ak Gaston ci combat bi suba pare pour nga dem reversal euh, certificat d'aptitude mais combat bi taxaw loolu lañ am maa ngi koy félicité di félicité équipe Fass yëpp. di nuyu Fass Dakar di nuyu sama sama mbokk yëpp mu mbaaw bi nga xam ne fa laa jógee yéen wax ne seen doom am na combat te ñu ko ñu ko tey nañ ko si yëpp si ñaan yàlla ñu am di encouragé ñoom kër yi. gis nañu léegi certificat d'aptitude physique mm-hmm. parce que ñu bari dañoo wax gëri ba ko courant commencé bu léegi. mooy loolu nag. waaw waaw léegi nag dañoo bëgg certificat boobu nga leeral ko askan bi parce que lu am solo la sur la santé et l'état physique de Gris Bordeaux. non c'est très important parce que xam nga Sénégal moom Sénégal moom xam nga yaa ma xam yàgg naa ko dégg ay commentaire est-ce que lii dafay ko mënu ñàkk loolu loolu xam nga mais dafa am importance trop tey chaque lutteur day avant ngay nekk ci compétition nga catapulte bi nga xam ne tey def naa ko tey donc c'est un médecin son professeur euh, agrégé ko Mabaska le médecin de CNG moo changé moo remplacé Thiat moo remplacé Ardo laa def cardiologue moom ko defal tey jël naa ko xool ñu dul tàggat xool lépp boo defuma ay certificat bien général xool yàlla le combat en Gambie le combat en Gambie a jàpp si chaque nañ ñoo mais valoriser nañ ko bu yóbbu ko dans le monde entier te làmb li ci am ci aspect culturel ci am ci initial làmb di gis ay di gis culture africaine ci làmb rek la ko yàlla amul ci leneen sport dafa am volet culturel am volet sportif d' abord avant ngay nekk bëri pare physiquement boo bàqoo am na ñoo xam ne làmb bàq képp dong mën na dugg asaan kon nag loolu ñun bu yóbbu ko États-Unis di ko Miami non dama ne la échec la ñu tant que loolu amul dañu échec parce que loo jox valeur moom valeur te tey dañu am obligation jël làmb exporté ko waxuma la Gambie yóbbu ko Gambie yóbbu ko Guinée yóbbu ko ah bu fi dugg loolu tey xam nañ am na am na bi ku la jàppale wala état bi jàppale ba yóbbu làmb fu nekk en tout cas ñu ngi lancer appel mu yóbbu làmb parce que làmb c'est un facteur de développement jërëjëf ko waatoon de. ma ñëw ci Balla Gaye Balla daal tey nga ñëw nii ma waaw xaaral ma ma daal baal ma nekk nii man dama lay xool rek. ba ci ak léegi xam nga yëngu. non teel a bu sa teel sa teel a waaw dama jàpp yow tamit la dama jàpp. ñu ne dégg waaye ah, nga yenu Boy Niang numéro 2. giri bi nga xam ne ba ngeen dajee mel na ni ñu daan dem ku ku yi naan ratatata tey tey nga jëlee ci ko mais Balla qu'est-ce qui se passe. waaw man it yàlla baax di sant suñu di sant suma sëriñ sëriñ Basiir Bara Mbacke di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram te tax na si barkeel di ñaanal suñu Muntaxa Mbacke di ñaan ko lool ak suñu Alaaji Malick suñu kër Babacar Si moom laa ñëw ko Ñaasaan ñëpp ñu yàgg di bàyyi ñëpp ak xol di bàyyi ñëpp ak di jaanal si tamit suñu papa Cheikh Ndiaga Sarr gën a àdduna di ko ñaan yàlla yàlla yéen ko te xaar ak gën a gën a kawe donc moom la day mbokk di jàllwaat bu ñu boobu di jàllwaat seen bopp avant ñu aussi tamit di jàll journaliste bi teew donc Pao maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax donc moom suñu papa la suñu xarit ak suñu frère ñu toog fii Alpha Diallo nee na àdduna na ko ci wax doom ja bàyyi bu toogee kenn ko laaj xew naka naka leen di ko baax koo xam liggéey euh, gërëm rawatina aussi tamit suma esaf suma encadrement suma bi ah, euh, euh, liggéey bi muy liggéey ci làmb wane ne saa yu ñëwee mooy deuxième wane ne saa yu ñëwee mooy première te yàlla nag mooy may te may na ko ñu ñaan yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér yaram ak wér ak di ñaan yàlla aussi tamit man sama décision ak li des suma carrière yëpp euh, bëgg naa ci cinq contrat di wax père ba léegi man doyal ko ah, waxal ca kaw dama ne di wax père Gaston ba léegi man doyal ko foqalew boo aussi man doyal ko kon ni ko giri làmb war nañ dépassé nga toog benn un an toog benn xaar contrat dafay metti te borom famille la ñu borom suñu contrat dañ koy bokk doomu aadama yi dañ koy bokk nii du doole yi muy man muy kii muy keneen moo xam ba lu munti doon kon donc benn contrat ci benn ak te bëri na ay mbëri yoo xamante ni seen contrat bientôt la ñu jëm deux ans xoolal na ñu toogee yor famille yor njaboot donc day métti kon père li nga def nii xàlluwaat nga beneen yoon bu bokkut li nit ñi doon xaar ci yow danga ñëw tuddaat ñaari avance ñetti avance kon ni ma gir waxee bu gisaatee benn avance ma koy conseillé bu jëkk dépendre ñu ci ay kase boo xamante ne dañuy sonn wala dañuy sonn promoteur promoteur duñ sonn dañuy xool loo xamante ne mooy yënnu maanaam ma liggéey ànd ak yow dooma gaañ tuma la gaañ mooy compétir dem xaalis du mën a régler sans problème keneen mën a régler problème donc père vraiment ñu ngi lay sant baax di la maa ngi gërëm aussi tamit suma staff ndax lii staff bu baax moo koy def di baral na ko spécial Aziz Abdoulaye Niang suma mag suma xarit suma lépp vraiment ma ngi koy ñaanal mag gi mu leen mu am njabootam ak famille ah, donc yàlla yàlla defal jàmm vraiment aussi tamit kontaan na trop di ñaan yàlla aussi tamit yàlla mën ñu si naan si ñett commencé ñu jël yëpp. amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di gërëm aussi tamit sama mag liiru euh, jàmm di gërëm Sénégal yi donc vraiment euh, yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaan rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin amiin donc loolu laa bëgg wax ci balaa ñuy ci combat bi. déjà relation Balla Gaye ak Gaston Gaston production surtout père Gaston dafa contribuer lu bëri ci sa njëlbéenu carrière ak ci li nga xam ne réaliser nga ko sa bopp tey ji ndax mun nga dellu soit ci relation boobu ak li nga xam ne yéen ñaar ku nekk jëriñ na ko borom moom. mooy mooy xam nga père moom ñi mu ànd ak moom noonu la ko ànd ak bëri yëpp ci biir wàllu bëri mosumaa jëlee ay quatre contrats trois contrats di ko bëri di ko maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne mbër saa yu ñëwee esat wala saa yu amee combat da gis form ci moom da gis doole ci moom parce que du manqué dara mhm. le temps mu ngi nekk ci liggéey ñun ñi amee bureau war a xëy di liggéey suba ngoon mbër bi noonu la war am mu ñàkk jot occupé ci boppam kon daal li may wax lenn mooy père mu ngi def lu garaaw après lay comprendre mhm. mais sama relation moom yàgg na parce mhm. que xam nga ne ba ñu ñëw di wax ak yow

samay doom lañu mag maa may ko nag mu ma loolu mu ne ko kër ma ñëw waxaale ko nangam la waxee mu ne ko ok ci ñaari combat ma yàlla dogal ma fay ko ma dimbali suma pare jot na maa tam aussi tamit certe eh, wan ma yónni kon loolu kenn ku nekk ñaan nga ko yàlla ak promoteur kenn ku nekk ñaan nga yàlla ak relation bu baax donc vraiment loolu daal xam naa ko daal nit ku baax la. Hmm. alors lamb dafa am spécificité. Ah, lamb dafa am spécificité. Euh, ci Balla Boy Niang di jàmm jëmale sa bopp tamit xam nga lu jógewul ci yàlla. ay jullit dañu ay doomu aadama eh, liggéey lañuy def kenn ku nekk yéene nga sa morom jàmm ak salaam jàmm bi àggaguñ ci li am solo mooy yàlla noppi na xalaatu moon na dina am moon na ba xam lii ci loo xamante ni démb lañ ko wax ak yow xama tey ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mi aar yàlla ñu aar yàlla mi sàmm yàlla sàmm ak mboolum ci donc loolu moo jar mais bis buñ ci àggee rek di xamante ni ah jàmm ñu jàmm rek mais ngir moom jàmm <laughs> day fa alors certificat d' aptitude médicale bi nekk lu bees lu nga xam ne visite médicale nga indi ko sa adversaire indi ko ah ci promoteur bi ngeen wan ko ko parce que loolu daan na am CNG mais ñëw ci promoteur bi indil ko këyitu médecin ni ko wér naa loolu yaakaar naa ne daaw la am non daan na am parce que tey balaa nga dem ci médecin mu xool ñu ngi gis loolu seen diggante ak CNG waaw mais aussi tamit kon bu ko kii waxee nii xam nga Sénégal moom da ngay feebar wala nga am tuuti problème ñu ne noonu nga rëccu kon ni ko giri defee nii c'est très important pour mu leeral na Sénégalais ñun ñaa ngi koy ñaanu jàmm parce que giri tey buñ ko ñaanul jàmm tey ëllëg ñun ñaanu suñu bopp jàmm parce que giri moo ñu mën a may xaalis ñun ñoom mën a may xaalis kon dañ koy ñaanal wér ak salaam euh, mu gën a wér mu gën a taw feex mais lii tam aussi tamit lu baax la xëy na ñoo ngi koy doog a promoteur bi nga xamante ni Sénégalais yi jàpp nañ ne lii moo dal jëriñ wéragul wala mu nekkul ci santé bu baax yàlla dogal na man ne ne santé bu baax laa nekk jàmm bu neex laa nekk kon ñoo bëggoon ñaanal am na importance vraiment. wax nga ko léegi ñoom boo koy lim ci sa palmarès. koy metti sax parce que nee na daan ah, bii nag mooy acte deux dafa war a leer wëlbët gànn wala teel mënu këpp. non mënu ko métti mënu que xam xeex bëri bëri xeex li mu génn saako yi trois fois. Mm. donc man du man maa ko génne du moom moom moo génne ëpp. Mm. règlement moo jox kon ni ko gars di waxee ndax noo ko amee baax na xeebu ma ndam mais gënuñu mm-hmm. on dit la vérité musuma bëri combat bu yàggee noonu musuma bëri aussi tamit combat boo xam ne jeexu ci ay nit donc nag vraiment bëgg naa bii moom kon ni ko sama mandat defee. fële doucement. attends photo bëgg naa ko ci kaw. incha allah. courant bi waa courant bi di ko maas. mais courant bi baax du la maas parce que léegi ay volcan yu bëri la. non saa yi xam ne euh, man daf ma ciy xaw a jaaxal. Mhm. que léegi yéen a bokk seen association. Mhm. ah sa président. Mhm. est-ce que jour boobu da ngay xool président bi wala mbër bi ngay xool adversaire bi parce que dafa mel ni ngeen joxante cër mel ni mburoog soow la yéen ñaar. waaw xam nga cër mënut a ñàkk ci doomu aadama. ndax nit war a sotteewul sa bopp yaakaar ne kenn du la sotti. Eh, ay noonu la. mu sol ak li ma sol. loolu ba ñëpp toog. donc amul lenn loo xamante ni mbër noobul. ci këram noobul bu génnee noobul la bu waree atam noobul la. boo gisee ay soxnaam wala nga gis soxnaam noobu la kon donc li gën a rafet rek mooy ñu joxante cër mais joxante cër bi yëpp bu laajee kon première face à face la combat bi déwén la cër moo tax gisoo lu tàng moo tax gisoo lu soow suñu président dañuy waxtaan ci lu bëri ci association ligue en activité parce que loolu ak euh, ak yelleef la ñuy dox. pour sama diggante moom ak yeneen du mbër yéeg moo xam ni mu ci doon. njëriñ la suñu loolu moo tax ñu seq ko ndax mais nag avant ñu ko seq lan moo koy indi dóorante kurpañ waaw yàlla daf ñu daje. kon daal loolu sànni relevoir ak loolu. Hmm. waaw loolu moom. kurpañ yi dinañ ko ci xaaraat ngay dóor sa président ay kurpañ mu lay dóori kurpañ. non président bi président la président maa ngi nii tey. Macky Sall tey day day day xeexal intérêt Sénégal pour feneen. Mm-hmm. am na ñu koy sax mooy loolu di ko sànni xeex teewul day jàpp ne président ak président ñooy xeexal kenn ku nekk intérêt la nga jëm sa kër. Mm-hmm. loolu daal amul problème. bu boobaa daal ñaari mbëri la ñuy gis. waaw mais du ñu gis président xaw ma secrétaire xaw ma. ñaari mbëri li teel en la ñuy gis. Mm-hmm. donc voilà. sur la préparation parce que yow yaa ngi ci ñetti ñetti ñetti phase il paraît que sax ci li ma fort ci wéyum bay fi ne boo fi jógee sax boo moytuwul nga jël vol dem INSEP. waaw alhamdulilah ñu ngi ci waajal nag ñu ngi waajal comme le 31 juillet la ñu njëkk a bëri sama diggante ak Bombardier mm-hmm. di ci ñaan yàlla aussi yàlla may ñu ci ndam bu sedd bi di wax suma mbokk yi daal maa tënk leen maa teel quasiment deux mois que booy Bombardier donc ñu ngi jëm ci combat boobu yàlla yàlla ñu ngi gis jàmm ñu si waxtaan. da nga dem INSET. waaw ñu ngi ci waxtaan ñu ngi ci waxtaan wax comme man xam nga joxe bokkoo ci làmb bu ñu ma tey la maa ngi tey bu ma suba la maa ngi tey alors combat bi ñu wax dañ koy yóbbu Gambie aussi euh, loolu nekk lu nga xam ne dafay gën a rataxal diggante ñaari euh, président yi nga xam ne déjà retax na mais diggante ñaari yi nga xam ne benn lañu ndax làkk boo dégg fa fële dégg ko fii sant boo dégg fële gis ko fii tamit ñaari réew yi daanaka benn. Sénégal muy Gambie Gambie mooy Sénégal te man saako laa sant. boo demee Casamance boo demee Gambie da ngay fekk seen sang mm-hmm. donc àdduna moo demee noonu ñun ñëpp benn lañ sama papa tey doomu Casamance la ci Sénégal la nekk ci Gambie la nekk ay maam fa lañ juddoo bëri nañ xel la boo xamante ne daal ñoo bokk lépp mm-hmm. di gërëm aussi itam Baye Diop Talla Mbengue Mor Fall Simon ak Omar ak suma père koy sant bu baax di ko gërëm ak Andaw mm-hmm. Ndiaye Pape Mamou Fall donc ñooñu suma nit la ñoo xamante ne ñoo nekkoon baax saa suñu dañ ci sonn ci seen bopp wan leen rek combat bi dañ cee waxtaan xëy na taxaw donc di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan. Real Barça. waaw Barça waaw gis nga. Mhm. ren moom comme moom neex la wul euh, ci Ligue des champions demi-finale mhm. comme ni nga ko waxee maa njëkk a toog ñëw naa fekk def tam xam nga deux heures lañ ko doon xam mhm. donc mu <laughs> donte ne nag aussi fas moo jur gox yu bëri fii. Mhm. dër bi waaw dër bi nag mënut a parce que tey boo nee kat yi moo dugalees ak ay suñu papam béykee jaar nañ fu ne ci làmb daje nañ fu ne ci làmb. fële que bu ma juumee aussi tamit suma papa mbéykee ak euh, suma papa dugalees bëri ñaari ah. la. waaw retour la boo seetee aussi tamit dessin la boo xamante ne même chose moo tax bëri nañu aay retour bi moo ci des. di ñaan yàlla yàlla mu ci ndam ñu bañ tamit euh, ñaan yàlla ñu naan verdict ba la ñuy xaar ba tey yooyu yooyu laay bay dégg daal. dina <laughs> waaw incha allah jërëjëf. waaw j'avais une question rek. waaw ñaar ñeent ñoom ñaar waaw. Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux. tey eh, euh, promoteur Gaston Mbengue bu leen proposé woon un championnat grand contre petit est-ce que yéen ñaar pare ngeen pour participer à ce championnat. championnat grand contre man de du ma du ma grand kenn man damay béy <laughs> dégg man fait li ñuy réere mbir mooy Tyson ni mu magee Balla Gaye bëri na Tyson bàyyi loolu làmb lu yàgg man maa ngi di continuer man maa ngi di continuer kon waaw baabooy noonu kon grand contre petit amu fi xam nga la moo fi am mbër ak mbër man amel ma kër avance man bu ma génnee ci lii tey jii may wax ak yow bu père Gaston ne ma encore tournant dama ciy dugg sama sant may na ma ko sama wér may na ko man ñaan man daal fu nekk nii li sama kër bu ma soñoon deux bu nekk ma bëree. di ci championnat bi d'abord ensuite euh, comme ni ko Balla waxee génération sport de combat nit ki boo ko magee cinq